Oh. depuis que école tijjee ba léegi nii si quatrième tooguñ benn taawul ba wala dugg nañ si benn salle classe bu def kii troisième sixième cinquième day si biir def ay cours mais benn quatrième boo xam ne dugg na salle def kii amul fenn te loolu nag muñ nañ ko semaine bee ba léegi nii ñuy toog di xaar réaction état bi mais deful benn réaction état bi nag sonn nañ sës nañ ñëw nañ si lycée bi pour ñu pour génn si état bi nee nañ nanguñu leen a génn nee nañ daa am 10 000 dañuy woo gendarmerie mais bëgguñoo bouger fii dañuy xaar gendarmerie ñëw ñu wax li leen wax te bëgg nañ balaa ñoo jógee bi nañ génn